waaw ñu nuyoo waat rek sëñ Mouhamed ñu ngi lay nuyu baax incha allah maa ngi wax mbooloo ñu leen kii bi Mouhamed Cissé nga xamante ni mooy coordinateur bu Aéré Lao waaw bàyyi ko ko jàll nekk porte parole comme lay baax a baax mu doon nit ko jumla bi tey ku ko xamul itam dégg nga si Pastefam ah. si kàttan bi rafet mm-hmm. si njàngaleem ak si jubbanteem ci wàllu mbooloo bu bëgg jàpp nan la ñuy àndee wax dëgg yàlla mu siy bay waar boo xamante ni bii waaru la ñu ngi siy a a a a baax loolu moo doon gis bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee émission ba sa xalaat bu koy amal altine bu nekk mu doon émission boo xamante ni bii macha allah bu ko amalee rek xel mu doon nit nga xamante ni bii itam ay relaaw bay bee mu nekk comité bi tey képp ku dugg moom moo la dagal de membre mu fay liggéey liggéey boo xamante ni liggéey bu tey jii doon assemblée générale communauté Baana Baana ñu fas yéene firndeel yeneen xar kanam yu bees biir comité bi yàlla dajal nañu fi tey jii tey boo doon wax tey jii si liggéey bi nga xamante ni bii ñu ngi seet depuis boobu léegi lan lay doon Mouhamed Cissé. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk moom tamit wax dëgg yàlla ci taxawaay toujours ba nga wax rek mooy kaay ndaxte képp ku gis taxawaayam wax dëgg yàlla euh, di nga bu baax a baax a dem ba jeex am na képp koo xam ne li ngi sa ginnaaw moom wax dëgg yàlla maanaam day am yàlla li ñu war a nga xam ne moom la ñu war a taxaw ci suñu communauté bi mooy xam li nga xam ne moom la communauté bi bëgg ak fañ ko bëgg a àggale waaw communauté nag euh, li nga xam ne moom moo moo ñu rek mooy ni àndandoo xàccandoo dóorandoo lañ wax boole suñu doole ñu nekk benn ndax mbooloo mooy doole mbooloo mi nag euh, ñëpp xam nañ ni euh, social ngi ci biir euh, ànd nekk benn tamit boole suñu doole ñi ngi ci biir xamante ngi ci biir lépp ngi ci biir ndax lii lépp tey communauté bi moo ko waral ñii nga xam ne ñoo nekk fii tey yàgg nañ fuuta yàgg nañ fi nekk te xamante ñu daan romante rek tey jii loolu lépp tey communauté bi boole nañu ba kenn ku ne xam sa moroom xam sa tur xam sa tur moom xam lépp di dem leen dégg ñëwante loolu rek dama ne bu fi communauté bi yamoon day daal di neex rawatina nag social bi nga xam ne moom képp koo xam ne nekkoon nga di liggéey man ba a tuur ah nga xam ne da ngaa tëdd feebar suñu borom eh, tëdd teg la feebar su boobaa communauté bi tamit encore woon ba dugg ñëw fexe ba eh, saafara ci feebar boobu def ci kéemtulaay kattan rek ba nga delluwaat ci sa liggéey. loolu tamit beneen point la boo xam ne tamit jar na bokk ci biir communauté bi képp koo xam ne yaa ngi ci biir communauté tamit maanaam ñu bëgg a xañ la sa àq ak sa ak sa ak sa yelleef ci bëgg laa tooñ wala bëgg a jalgati sa àq su boobaa communauté bi moom tamit dana taxaw képp laay kàttanam bu fekkee dañ laa tooñ mu wëlbatiku indi tooñaange yooyu xam ne ñooy tegoon teg ko sa kaw waaw kon muy ñett yoo xam ne lim naa ko fi yoo xam ne jar na dong dong bi maanaam <coughs> rek dara dugg ci biir communauté bi te communauté bi mën am ay sàkkanu tax koo seer lool ndax lan lañ lay laaj weer bu nekk téeméeri dërëm nga joxe at mu nekk 6000 francs nga bokk ci biir communauté bi dagg sa carte membre lii tax nga bokk ci biir communauté bi ah loolu wax dëgg yàlla yow mi nga xam ne ay membre bu bi loolu moom nekk na yow boo xoolee ci ñi nga xam ne ñooy eh, membre yi nga xam ne ñoo ñoo sëq ñoo seq liggéey bi rek loolu wax dëgg yàlla dina yomb ci yow loolu ndax ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi tey xoolal coono yi nga xam ne moom la ñuy daj tey jii boo joxee 6000 francs boo joxee téeméer ñoom seen 6000 francs lañ dagg dem loolu ci gën a sonn foofu boole kooku maanaam di nga bëjëgul dem ci biir nit ñi bàyyi seen liggéey di di daggal nit ñi ay di yor lis loolu yëmuta ci waaye dañuy génne seen xaalis di ko dépassé waat tamit ci communauté bi bisu tey bi rek firnde ci bi ñu jaayantee kenn ku ci ne da nga yëkkati da am joxe nga ko te mën naa am yow mi nga xam ne yooyu membre loolu defoo dana yow mi nga xam ne dañuy ñëw ci di la laaj téeméer loolu wax dëgg yàlla war nga ko mën a yombalal ñi nga xam ne ñoom la koy laaj ba bu ñu ñëwee ci yow duñ la sonal rek kon daal xam naa sëñ daal maanaam xam naa kàddu yi bu eh, mën a bari foofu lañ koy tënk rek mooy daal nañ jàppaat bu baax a baax ci suñu communauté bi xam ni eh, ñàkk cee bokk daal moom la yàgg a wax toujours. te képp ku ci bokk tamit daal na nga góorgóorlu bu baax a baax a baax eh, jéem a yóbbu communauté ba ca kanam fépp foo nekk tamit foo xam nga jéem fa tasaare communauté bi ba mu dugg ci loolu ba nga xam ne ñoo ko nekk waaye boo ko yemalee sa bopp rek day mel ne daal yow kon liggéey loo communauté bi dara baax boo yemee sax tey nga fi doon baax ndax koy tasaare rek mu gën a yaatu mooy ñun ñi ñoo koy tasaare kon ba ñu nekk jëm ko tasaare foofu ci mboolem ña fa nekk ñëpp ñu jëm ko àggale ci ñoom bañ àgg ci ñoom ba gaa yëpp man cee jot ndax am na ci ñu bari ñoo xam ne tey jii bëgg nañ lu baax lii kenn du kenn du ko dégg gis njëriñam di di ko bañ c'est bu fekkee nit ñi bëriwul heure bi nii rek mooy mooy communication bi ci boppam moo xaw des bu baax a baax a baax te kenn ku ci nekk foofu ba nga nekk yow yaa ko mën a yaatal bu baax a baax ba mu gën a yaatu waaw kon daal moom ñu ngi ciy woo booleen koo xam ne baana baana ak kuréel baana baana képp koo xam ne rek maanaam étranger nga nekk fi ak ñi nga xam ne nekk ñu étranger sax te nekk ci biir dëkk bi ñu ngi leen di woo ci communauté bi insha allah maanaam ñu gën a suqali suñu communauté bi yaatal ko nga xam ne njëriñ dong la xam naa foofu la ñuy tënkee suñu kàddu rek sëñ Souleymane di la dellu àndal bi insha allah bu doon euh, secrétaire général association communauté Baana Baana donc ki nga xamante ni tey mën naa la wax ne liggéey bi yëpp ci moom la proposé wu. wax dëgg yàlla ñuy bëgg seq ak moom ay laaj yu tontu rek si nga xamante ni xam naa daf ñuy junj xam xam naa xam naa daf ñuy junj rek dañuy junj rek waaye xam naa li mu war a leeral lépp incha allah bu ñu demee fee ci kanamu mbooloo mi bu ñàkk ni dana ko leeral sëñ bi communauté Baana Baana taxawal na bi ñu koy taxawal yàlla def na boo de gis membre fondateur yi. mu am lu nga xamante ne bii moom la doon li soroon boobu léegi macha allah ñu si àndandoo di dox di yëkkateeloo di déglu ba bis tey jii nii. ñu fas yéene amal sunu assemblée générale tey boo bu gàtt durant année bi liggéey bi ni mu demee li ñu si jot a réussir rek lan lay di la bu yële ci développement dina daal dina jaajëf bu baax a baax a baax ci sa xalaat ak sa passé bu ko defee mu nuyu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoom laa jàkkaar yëpp leen wax ne comité Baarabana moom vraiment bëri na fu fu fu ñu le départ ak li nga xam ne moom la ñu jàppoon ne peut moom la ñu euh, fixé wu woon comme objectif yàlla dogal na euh, même bu fekkee amuñu ci li ñu bëggoon à 100 pour cent déjà euh, am nañ ci benn point boo xam ne marqué nañ ko déjà kon loolu rek déjà mën nañ ci jàpp comme que parce tamit booy xool ñaare njëlbeen bu ne rek du jóg rek li ñuy wax rek bu début bi difficile munoo départ ci dara rek sooke ko ci départ rek mu njëlbeenu rek nga xëy rek amandoo ci lépp li nga bëgg à 100 pour cent jafe na mais vraiment bu ñuy xool par rapport ak euh, bu ñuy def évaluation rek ci biir année bi li ñu ak euh, fi euh, fi fi nga xam ni yóbbu nañ fa communauté bi parce que dañoo départ yàlla dogal na à zéro amul lu ñu sampal amul dara ñuy nas suñuy xalaat gannaaw bi ñu tënkee suñu bureau di wëyal di doxal am ay programme yoo xam ni ñu koy ñu ngi koy étaler di ci dox vraiment

taxaw ci taxaw bi nga xam ne moom lañ ci war a taxaw ba yàlla dogal tey mu jur lii bien vrai c'est pas satisfaisant à 100 cent ndax 100 pour cent mais nag ñàkkul loo xam ne yàlla dënk na ko ci ñu am ko parce que damay wax comme li may wax rek bu fekkee yàlla dogal na ñu am un investissement humain rek ñàkkuñu dara ñun namuñu dara parce que ay nit ñu taxaw def seen fulla ak seen fayda am jom am foo xam visé nañ fa bëgg faa yegg bu ci ndimbalu yàlla àndee tuuti rek dina bëri foo xam ne maanaam mbooloo moom bu fekkee rek dëgg ko laloon dina yomb fu ñu leen fu ñuy dégg seen tur fu bëree bëri te loolu yëpp yàlla dogal na jax euh, euh, teew na ci suñu mbooloo mi muy ñoo xam ni ay nit la ñu jël pasteefu jël seen ñaar mu def ci jël seen temps yàq ko ci boo ko defee rek surtout euh, tout ndimbalu yàlla amee rek comme ni ma koy waxee mën nañoo yegg fu bëree bëri loolu daal doon na benn jàngat boo xam ne am naa ko ci deuxièmement ma ñëw ci lii nga xam ne jàpp naa ne aussi lu jar lu jar wax la parce que gis nga affaire bi nii dañ ko jàppee lu yomb mais yombul yombul yombul mais nag comme yàlla dogal na ñu am ay njiit yu mel ni ci ci yow euh, am vision lool wax dëgg yàlla di ñu teg ci yoon boo xam rek peut-être euh, buñ ci jàngatee rek dañ ci jëlé expérience yu bari oh. ba lu ci bari buñ ci jaaré dinañ ci gis ndariñ yo xamni euh, dina ci mëna juddu ba ba ba wessu suñu yox mm-hmm. loolu doon na lo xam tam peut être may nañu chance ci côté euh mu doon lo xam nak côté parti bi dess moy di ñaaxat rek sama bopp di ñaaxat ñun ñëpp pour ñu gëna a gëna taxaw mm-hmm. xamné fiñu bëgg dem dal il faut ñu taxaw ngemb Euh, seet aussi naka la ñuy structuré waat waa affaire bi bu fekkee comme yàlla dogal na année bi clôturé nañ ci jàmm kenn manqué wu wax dëgg yàlla sant yàlla yàlla na jëm kanam ñu jéem seet nu nuy xool ba orienté waat affaire bi lu ci jar jooyante ñu jubbanti waat ko lu ci jar dolli tamit ñu seet nu nuy def ba dolli comme li nga xam ni daan nañ ko jàmbat ci ay manquement yu ci am ci biir muy ci côté doxalin yi ak ci côté ñi nga xam ne ñoom la ñu jiite yëpp ñu seet nu koy jooyantee ba teg ko ci yoon wi nga xam ni moom la gën a sàkku bu ko defee rek euh, dinañ gën a mën a gaaw parce que affaire bi dafa mel ne pour investir dans le long terme rek comme ko président bi waxee léegi mën na am sax ñun ñi ciy tey jii duñ fekke njariñ la tax ñuy wax mais nag mën nañ koo teg tëdd ba teg ko ci yoon woo xam ne bu fekkee doon teg kon danañ fi bàyyi ëllëg ay nit ñoom it yoon woowu buñ ko wàccu dala dem ba ñu mën koo dégg foo xam fu sore sore la ñaan leen yàlla sax nag gaa bu fekkee sax gaa Pastef bi doole nañ ko doole nañ gis-gis bi li nga xam ni euh, mbooloo mi laaj na ko lépp ñu seet nañ koy structuré ba teg ko ci yoon mën na ci ay at yu néew sax ñun ci suñu bopp sax ñu gis ci suñu bopp man loolu maa ngi koy maa ngi koy gëm am naa ci yaqin lu ci mel ni ay investissement am nañ ko ak ay programme ak ay projet yu bare bare yow ci xam buñ ko tegee ci ñu ko xam ne nu ñu koy tëggee rek bëri na ci loo xam sax ni ñu koy waxtaanee hmm. teg ko ci yoon ñu ko war a teg rek peut-être euh, d'ici deux trois ans voire trois ans mën nañ dem ba mu toll foo xam ni parce que fi mu toll nii ñun ñooy yëkkati di jariñ comité bi hmm. mais comité bi mën na dem ba toll foo xam mooy wëlbatiku dina jariñ hmm. su boobaa dootuñu ci sonn ndax dañuy fàtte coono ban ca doon daj ak yëpp dinañ ko fàtte yàlla dox nag euh, ñu am ay membres yu compétents yoo xam tamit mënu ma leen a ñàkk kii ma leen di nuyu ay euh, de passage yoo xam kenn ku ci nekk rek euh, vraiment mën na mën na mën na lépp ci communauté bi loolu it il faut ma wax ko fii ci biir mbooloo mi lépp xam ne loolu aussi lu am na ginnaaw loolu ma joxaat la antenne bi. di la jaajëfal baax a baax kàddu gi rafet na trop macha allah xanaa di la ñaanal yàlla dina dëgëral sa taxawaay. gën a jubal sa làmmiñ ba dëgg yàlla li ngay mën di wax nit ñi mën di ko dégg te buñ ko déggee itam yàlla def jeex tam si ñoom ñi xamal mbokk yi maanaam ci moom mooy imam Malick Cissé yore nag njàpp ci luuma yi njàppam yaakaar naa kenn doon ko laaj wala ko dugg doon commissaire au compte si biir association communauté de Bara Bara ànd ak ci liggéey bi ak Serigne Diallo ñu doon ay nit ñu nga xamante ne bii nii wax dëgg yàlla depuis bi association bi taxawee ak léegi keroog bi ñu taxawee réunion ak léegi li nga xamante ne bii nii moo jëm si seen wàllu liggéey desaluñ si dara wax dëgg yàlla lépp lu nga xam ne dugg na si wàllu t-shirt ak wala lu mu war a jaay lu mu doon am nañ si Pastef bu mucc ayib teg si beneen bu si nekk la na liste de vingt cinq personnes nga xamante ne bii nii chaque fin du mois maanaam du des dara wax dëgg yàlla may kontaan bu baax si ñoom si turu communauté Baana Baana si seen liggéey ak seen taxawaay di leen si jaajëfal bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mi nga xamante ni bii moom moo am fay mu fay leen gën di fay di wax ni wax dëgg yàlla tànk yi nga xamante ni bii nii yéen a ko am biir bii yi nga xamante ni bii nii seq nañ ko kontaan nañ si bu baax a baax a baax a baax a baax gannaaw si biir loolu nag Imam Malick ñu ngi def te interview wax dëgg yàlla association Baana Baana keroog bi nga taxawalee ak léegi xam naa tey day bëgg dem ci at

di wax ne comité Balla Balla nekk na loo xam ne maanaam sos gi dafa jafe sos gi dafa métti trop ndax yow xam nga ci dara ndax ginnaaw bu ñu koy sos bi sos kenn ku dafa amoon lu la sàttoon loo xam ne même sa liggéey sax mënu la ko may waaye da ngaa jaayante ak sama kan ñu koy doxal di ko doxal di ko doxal mu jigi ñu wut ay carte membre di ko jaay wut ay tiset teg ko ci terrain bi di ko jaay wax dëgg lu doy waar la ndaxte boo gisee commencement bi ak ni mu agsi fii ak dox am na ci ak jaayante am na ci ndaxte comité Baana Baana nekk na mbir moo xam moom bari na ñu bari nee na ñun dañ ko yéex a association bi dañ ko yéex a sos ndaxte nekk na mbir moo xam ne loo gën a dem di gën a gis résultat ñun ñi nga xam ne ñoo féete terrain bi am na ñoo xam ne ban koy sos joxuñ loolu waaye bi ñu dawalee peut-être trois mois deux mois trois mois xam na ne mbir mii lii ñu nekk ñu dëgg la jëm ba tax na dab dabaal na ñu jaay ay carte am na it ñoo xam ne yaakaaroon nan ne ñun ñii kat sonn gën ciy sonn intérêt lan ciy kat ndax ñun dañ ñuy fay ginnaaw bi nag ñoom xam nañ ne ñun ñii di liggéey nga xam ne ñun ñooy topp nit ñi di leen feeku di leen jaay ay tiset di leen informer di leen wax di ànd ak président dem ci ay digalam ñu xamal leen na ñun lépp lu ñu def ci cadre baana baana ci lañ koy def ndax ñun xam ngeen na ñun baana baana la ñun bu ma yeboo ma ne marché bu ne fa la ñuy fanaan di xam na ne lan doon jànkuwanteel ci marché bi président xam na ko waaye nag bi mu sosee communauté bi ba mu am ñaari weer ñetti weer ñun xam na ne marché bi am na ci loo xam ne ñun ñu ngi ko doon def teggi nañ seen tànk ndax di bari xam na ne léegi baara baara yi am nañ communauté am nañ association ba doon benn léegi ñu bari xam na loolu ci ñun ba nga xam ne kenn ku ci ne la nga doon bëgg def sax la nga doon bëgg di xaar. di ko xool ñaññal xol ñooñal boo gisee weer yi ñu nekk nii parce que démb rek laa wax maanaam boo gisee marché yi am na lu bari yoo xam ne amatu fi di jéem a xol ñaññal nit wala wala di jéem ëpp doole nit ba rek koy opposé léegi amatu fi ndaxte bu amee yow yow mii même ñi nga xam ne bokkuñ ñu fi dëkk di ñu xool gis nga may somb moom commune de Bara di añ kees kii di añ kees kii ku ci laaj ñu woon la yoon wi da ne ah kon ñii ñu ngi tënku ci léegi benn mbir moo benn bennoo boo xayante ni képp ku laal Cheikh Fall nii mel na li laal nga baara baara yëpp kon nag ñu ku def def ku yëpp def attention ci ñoom te benn mag nee na ma lii de sama doom mën a mën a ma da koy yéex a sax waaye lépp loo gis ci àdduna bi mbooloo mi moo ko mbooloo mi moo ko sax ndax société yu mag yi nga gis yëpp ba ci benn mag nee na waaye ENACOIS gi ngay dégg doole ji ñuy am lépp ñuy bu ñuy commencé presque ay dix huit personnes lañu. te nag yàlla dimbale ne fii bu ma yeboon a yéen rek ñu yàlla fi ne bu ngeen booloo seen doole doon benn fu ngeen mënta àgg am kon nag loolu man am naa ci mbégte bu baax a baax te coono yi ma ciy sonn sax mënuma koo yëg ndax ñoom ku gis ni nga xam ne noonu la fa du dara intéressé wu mooy liggéey. liggéey rek baana baana doo ko gis ci leneen bu xëyee ci marché ba ngoon jot bu wàccee rarement nga gis baana baana buy taxawaale ci mbedd bu xëyaatee ma nga ca liggéey bu lu am te ci lancé nag nit ñi ñuy yeewu ci ndax nit ki mën ngaa toog yow kese man sa bopp waaye nit maanaam maanaam kennoom kese dafa tax wax dëgg réew looloo nga nit nit loo mën gis balaa balaa baax day am mbooloo bu tënku mbooloo bu tënku moo mën a moo mën a moo mën a sowe adduna bi ndax lépp loo gis ci àdduna bi ñu di ko tënk dañuy booloo ba doon benn amadoo benn kàddu di ko wax ba nga xam ne lii luñ ci bëgg a tabax tabax ko ci kon ñu nekk nii président man am naa ci mbégte te it euh, biir terrain bi ñu ne wax dëgg yàlla nit ñu ngi ci yeew yokk maanaam ñu ngi doxal xaj na nag dafa laaj benn dépendance bu ndaw rek waaye wax dëgg yàlla nit ñi bu ma yeboo ma ne ñu ngi joxe loxo ci suñu association bu baax merci président